शेरे काय मजेला jigéen ñi daw si leen gaaw si suñu boutique bi nga xam ne moom moo di Braya boutique ma ne ko fan la nekk ñu ne rond-point gaz ba boo jugee croisement 22 rek dangay ngay jàkkaarloog ñun mbokk yi jaratul ngeen di daw di dem foofu nga xam ne moom moo di Petersen xam ngeen ne nag ñoom dañoo yaatal seeni ay mbir moo tax xale yu jigéen ñi ñoom la ñu taamu foofu boo fa duggee bépp biisu boo bëgg am nañu ko ma ne ko biisu plaqué yoo xam ne ni mu rafetee noonu la baaxee waa Braya boutique daal moom la askanu Sénégal taamu yéen xale yu jigéen ñi bu leen ko kenn nattali yi te gëm naa ni sax ñun ngeen faral ñun ngeen gëm ndax suñu ay biisu plaqué kenn mësul gis yu mel noonu si mim réew bu fekkee ni da ngaa jóge si marché bi boo tourné si feu bi rek ñun ngay jàkkaarloo ah mbokk yi kon jëratul ngeen di dem foofu nga xam ne moom moo di Petersen li ngeen fa daan wuti yëpp indil nañ leen ko foofu nga xam ne moom moo di rond-point Case ba boo ñëwee dinañ leen ko jaay engrais te seen xol dina sedd di ngeen kontaan booleen leen demee di ngeen del si waat Raya boutique xam ngeen lan la da ngeen may jox gaaw numéro téléphone yéen ndax ñi ngi ma koy laajte ñu ne ma numéro téléphone téléphone da ngay def 77 509 mbokk yi daw si leen gaaw fi nga xam ne moom moo di Braya boutique. fonkal ma say goro say njëkke say xaritu jëkkër waa Sénégal asalaamualeykum wa àdduna ñi ngi dellu di nuyuwaat ñëpp di ziar ñëpp tey ñaanal ñëpp jàmm di ñaan yàlla def ko ci àdduna bépp tey waa Lu Xew TV ñoo ñëwaat ak yéen ci benn vidéo boo xam te ni jotoon na fi jaar muy benn histoire am sunu benn sër bu doon wax que moom li Mariam di dund ci série bi loolu lay dund parce que dafa am kum nekkal cinq di dem këram fekk kooku am na soxna te moom yëgu ko ñu bari nag wedd nañ li wax am na aussi ñu ànd ak moom ñi loolu am na am na ñoo xam te nee nañ mënuñu koo weddi que mënuñu koo gëm parce que histoire bi dafa desee leer loolu moo waraloon nag pour indil leen ci ay leeral ñu jël suñu téléphone woo ko waxtaan ak moom donc waxtaan boobu moom lañ la indiloon tey comme dafa desee woon leer ci bopp nit ñi ñii weddi ñii nangu ñii ni ñoom mënuñoo weddi mënuñoo nangu parce que amaguñ ci lu leen leer te effectivement aussi tamit li ngeen wax dëgg la parce que histoire bi d'après moom ni mu ko expliqué woon am na yu bëri yoo xam te ni si ni comprendre duñ ko woon donc pour gëm ko da doon xaw a jafe léegi nag ñu ngi leen di bàyyi ngeen déglu li nga xam te ni si moom la waxtaan ak moom su ngeen paree ngeen door a juger ngeen baal ñu nag appel bi dinañ ko modifier maanaam voix yi la ñuy modifier parce que bëgguñu ñu xàmme baatu xale bu jigéen bi wax mais ku góor ki man la xëy na baat dina xaw a changer ndax modification yi mais wax ji dina leer te di ngeen comprendre li ñuy wax kenn ku ne nag am na droit gëm wala ñàkk gëm loolu moom nangu nañ ko ñépp mais li nga xamante ni si moo lëndëmoon ci xelu nit ñi moo lañ bëggoon a indi tuuti leeral kon ñu bàyyi leen ngeen déglu waxtaan wi Aliou bi. oui ça va si si la nekk. ça va bien maa ngi jàmm. yàlla na yàgg. maa ngi ci jàmm bu baax. en fait waa Lu Xew TV la. ok. léegi dafa am benn histoire boo dugaloon mais dafa am ay réaction yu bari yoo xam te ne moo ci judd. waa histoire bi d'après ni ñu ko expliqué ñoom mënuñu ko gëm. am nag ñoo xam te ne si weddiwuñ mais tamit ñoom koo gëm tant que amuñ ci lu leen leer. looloo waraloon ñu woo pour waxtaan ci ak yow pour indi ay leeral daal. waaw. ñu bëggoon ñaan nga expliquer bi nan la demee. ah ok histoire bi man maa ko dugaloon. dama ne dama am benn copain boo xamante ne dama dund ak moom cinq ans. ñoo ngi génn. ba cinquième année bi ci laay doog a xam moom dafa am jabar. alors que dans cinq ans yooyu maa ngi dund ak moom mais musuma xam ne dafa am jabar ba am ñaari doom mm-hmm. daal naa dem këram di fa fekk propre jabaram mm-hmm. këram parce que kenn laa fay dem damay dem ay dix heures yooyu ba ay dix neuf heures mm-hmm. ma ñu gisee mais musuma xam ne xale bu jigéen boobu jabaram la. d'accord léegi li nga xam te daal moo jaaxal nit ñi mooy. comment ngay dem ci kër. di nekk uh-huh. xam ne jabaram la loolu moom moo jaaxal ñu non loolu ça dépend bi ñoom seen couple bi parce que man bu ma ci kër gi mm-hmm. ci sama copain bi dem mais kooku bu ma demee daa am benn bu nekk ci kër gi man ci kooku laay booru kooku laay féetewu daal ci kooku laay nekk mm-hmm. waa kon ok d'accord kon euh, kër gi du woon jabaru copain uh-huh. rek ne ak copain dafa amoon beneen sëru euh, waa rakkam bu jigéen waa rakkam bu jigéen moo nekk ci kër gi léegi rakkam bu jigéen boobu moom xamoon na ne yow gaam bi dañuy génn non rakkam bi xam na ko bu baax def nañ cinq ans rakkam bi xam na ko bu baax d'accord te léegi moom musul wax tamit que keneen kee ne jabaru copain bi la wala yu mel noonu non rakka ji tamit rakka ji tamit nu may dundal magam bi musuma wax ni sama mag bi kii mooy jabaram sama copain bi kooku mooma musa wax ni kii sama jabaru mag la wax na ma loolu. d' accord xam nga loolu moo leeru woon ci bopp nit ñi. parce que dañu dañu jàppoon que ni comme euh, couple d' habitude bu nekkee ci kër rek nga xam ne ne ñaar ñi dañuy sëy. donc wax ne da ngay dem ci kër ga di fa yendu ba cinq ans. nga mhm. xamoo ni kooku noonu jabaru waaji la ba jour bi nga ne dafa ñëw sa kër. di wax ne doom dafa feebar. ki ngay door a découvrir que ni kii ni la. waaw jour boobu laa koy doog a découvrir. ok d' léegi yow bi nga déki euh, bi nga découvrir ne ke kii nii jabaram la la moo nekkoon sa réaction. man sama réaction mooy ma bàyyi ko définitivement. Mhm. mais ba ma jëlee euh, ba ma jëlee loolu. i laa dem toog réfléchir bu baax ma xalaat nit ñi lu ñu jot a wax sama diggante ak moom mhm. ma ko naree bàyyi noonu dañuy am dab sama kaw noonu laa ko toppee may dund moom noonu ba nii laa jël sama propre ni dama koy bàyyi définitivement parce que daf ma fenal pendant ces cinq ans. d'accord kon instant bii nii ñuy wax ak yow yow waa ji nekkatu leen. non instant bii moom nekkatuñu ça fait un an léegi nekkatuñu. ok d'accord léegi rakam bi nga xam te ne moom doon fekk ci kër gi yéen ñaar instant yi nu ngeen demee. non rakk ji instant bi moom man ak moom duñu wax sax wàcc boppam fekkatuñu ko parce que rek ba ma ko dama dem ba ci moom. ma wax samay quelques mots yoo xamante ne dina ko xaw a touché ma ne ko mais yow jigéen nga man jigéen laa naka laay mën a dund ak sama góor boo xamante ne kii jabaram la mu musoo leen ma ko wax ngeen may euh, ngeen may manipuler comme seen téléphone ba ñii dama tudd ak rakk ji. ok d' accord léegi est ce que mën nañu xam tuuti ci diggante jabaru copain boobu noonu ak rakk copain bi nan lañ demee woon vu que yow nekk nga ak magam magam am jabar jabar ji ne ci biir kër gi moom waxula dara. est-ce que mën nañ xam diggante xale bu jigéen boobu maanaam saraxu copain boobu noonu ak euh, jabaru copain bi nan la demee woon ba ba mu demee noonu daal. waaw ok rakam bu jigéen boobu. Mhm. man ak moom ñoo doon ci koñ bi fii nii rakam boobu sama xarit la woon. Mhm. ba ma doon dund ak moom après man ma ma dem Dakar di continuer sama étude foofu bàyyi rakam bi fii. Mhm. rakam bi ñëw présenté ma magam may dund ak moom te rakk ji tamit nee mag jooju kooku kooku kese laa xam koo xamante ne mhm. magam la feetal na ko bàyyi mooy loolu ma ne ko waa amul benn problème ba ñuy commencé génn moom affaire mariage la ma proposé nee na ma sama mag bi nee na daf laa gis nga noonu lañ duggantee may génn ak moom may dund ak alors que pendant ces cinq ans ces cinq ans là daf dañ ma doon sonal moom moom rakk ji wax ma dëgg mag ji tamit wax ma dëgg man noonu laa doon dundee seen biir ok d' accord léegi yow bi ngay nekk ak copain bi booba fekk na mu am jabar ba pare wala jabar. non man affaire bi yëguma ci dara man ba may dund ak moom yëpp laa ci yëgu dama ne la bi laa yëg ni moom am na jabar ba am ñaari doom xaw ma nag ndax moment bu may doxaan takk na jabar ou bien takkugu ko. mais defe naa ne jabar parce que koo xamante ne da ngaa am ak moom deux deux enfants keneen ki moom euh, commencé naa dox. Hmm. keneen ki moom mooy loolu. ok d' accord bon peut être na fekk mu takk a fekk mu takk parce que diggante cinq ans nit mën na ci am ñaari doom. waaw tamit dëgg la âge am. Uh-huh. donc côté boobu daal la ci woon mais yow tamit mosoo dem ci kër gi. nga fekk na uh-huh. euh, sa copain bi ak jabaram tamit ñu nekk ci kër gi seen réaction. musul am loolu moo ma gën a soke musul am man musuma dem ci biir kër gi ah, fekk euh, jabar jeeg. jëkkër ji ñu toog nii ci couple ni ba nga xam ne ñii moom mm. ay couple lañ mutul am te mutuma ko gis. ok d'accord te léegi yow kon bi nga doon dem ci kër gi kan moo la ko doon yóbbu comme yow dafa mus dafa dafa fekk sa copain bi bi nga dem ci kër gi lan moo waral nga fa doon dem. non comme euh, comme que man dama bëgg may gisante ak moom fenn foo xamante ne. liiwuma mm-hmm. ko bugguma ko man bu koy bu koy seeti dama koy naan. man bu ma lay seet du ma du ñu dem dëkk fenn sa te d'ailleurs moom moo may joxe autorisation ma ñëw ci kër gi mais bu ma ñëwee ci kër gi si rakk ji lay féetewu carrément. d'accord waaw. mais xam nga ci biir wax da nga ne yow mosoo ñëw ci kër gi ba waa ji toog fa heure boo ñëwee moom day génn après boo waree ñibbi ci la lay woo ni la ngeen tase fenn pour nga mën a ñibbi. waaw. donc yow loolu bi mu amee sa xel dawul ci benn côté nga ne ki am na lu muy laakoto parce que. ki nga sama xel bi musul ñaawul jot sax man daal moment yooyu sama nobel bi laa topp moom lu ma wax rek loolu lay def damay daw ginnaawam comme xajub mus daal ñun noonu lañ nekkee woon affaire bi man mii bu ma toogee bu ma damay naan noonu lii du vrai théâtre la théâtre laa doon dund man te ñoom nuñ ko affaire bi nuñ ko daan defee moom a lii daal moom bu ma nekk ci kër gi dama ko gis daf may naan te Amina nga ñëw defar ci moom léegi bu ma man bu ma ñëwee ci moom moom daf may naan damay liggéey te léeg-léeg bu ma bu ma ko woowee ma ne ko damaa bëgg a ñibbi mu ne ma ñëwal fii di ma fi fekk après ma ma wax ak moom ma ñibbi sama kër jeex na loolu kese laa doon ci kër gi. ok d' accord comme ni nga ko waxee dëgg la sa mbëggeel nga topp te tamit mbëggeel yi na def loolu nit lenn ku ne euh, lenn lu ne. tey jii nii mm-hmm. nag eh, benn côté bi mën nañu wax ni négligence dafa xaw a am parce que li nit ñi mënul gëm ñoom li ñu mënut a comprendre mooy comment ça fait nga nekk ak nit cinq ans ngay dem mm-hmm. këram soxnaam nekk fa benn mënoo ko xam bi ci des comme li nga wax rek nga ni li nga dem yëpp yi nga fa dem yëpp à chaque fois mm-hmm. boo ñëwee moom day génn léegi bu génnee ba sa heure ñibbi jot moom mu woo a téléphone ni la pour ngeen daje fenn après nga dem ñibbi waaw moo xaw na lu dem ci bopp nit ñi waa loolu la man loolu laa dund réellement te xaw ma affaire bi nan laa koy expliquer man loolu laa doon dund carrément man musuma leen gis couple boo xamante ne te ñoom ñaar jote nañ am ñaari doom musuma dugg ci kër gi ba gis leen ñoom ñaan mu toog wala ma gis ku góor ki xam nga couple boo boo duggee ci kër gi gis gis nga euh, jigéen ak jabar nga xam ne bu dee bu fekkee couple la da nga koy xam réellement mhm. mais man loolu laa musul gis te daanaka man damaa considéré ne kooku a la amul jabar amul dara man loolu laa ko considéré. ok d' accord ça se comprend léegi beneen bi mooy. am na tamit sa biir wax nga ni boo daan dem ci kër gi parfois di nga fekk jabaru copain bi muy togg ba nga naan ko pour mu bàyyi la yow nga togg di fa nga daan waaw. mais léegi ci biir loolu lépp tamit amul benn réaction wala yéen ñaar daaw leen toog di waxtaan ba mën. non kooku kooku moom xaw ma ko nu may ma doon dem ci kër gi ci laa ko commencé di ma ko ci kër gi ci kër gi laay féetoo sama am na benn samedi dama fa demoon jour 31 la woon mhm. non astafurlah jour 20 la woon mhm. ma dem ci kër gi ma fekk moom muy togg ci laal Amina. waaw doona doo bàyyi doo bàyyi kii nii nga ne ko mu génn ci waañ bi ñu ñu dugg toog ñu dugg ci waañ bi toog man noonu laa duggee ci waañ bi ñu togg andi ba pare après ma woo ko mu ñëw yàq añam mu jeex léegi am jot na jot na am benn jour a dama la ci Amina moom ma ne ko mais kii kan la mu ne ma non sama jabaru mag la ñoom tamit keneen ki nu mu ma ne sama jabaru mag la ki tamit noonu la ma waxee ni sama jabaru mag la après man sama xel bi mutul ma loolu daal. sama kat bi musul dem ci dara. kon sa copain bi dafa la wax ni xale bu jigéen boobu jabaru magam la. jabar magam la. sa sœuru copain bi également wax la même chose. kooku tamit également mu wax ma même chose alors que réalité bi. Mhm. sama copain boobu noonu. jabara moo nekk xale bu jigéen boobu. d'accord je comprends. Euh, li ma bëgg a comprendre aussi tamit mooy tey yow bi nga naan dem ci kër gi yow ak sa sœuru copain bi ak sa jabaru copain bi daaw leen bokk fu ngeen di fréquenté wala kenn ku ne sa appartement. non non non non non ñoom seen kër gi appartement par appartement la. sëram boobu dafa am dafa am jëkkër à part mhm. léegi kooku jëkkëram bu voyagé nii jëkkër bitim réew bitim réew la nekk kooku bu voyagé nii léegi bu ma ñëwee ci kooku lay dal léeg-léeg man mii rek a nekk ci kër gi bu ma duggee ci biir néeg bi génn bi xanaa sama heure bu jotee wala añ bi jot ma génn añ ak duggaat ci biir sama sama fréquentation bëriwul kooku daanoo ko fréquenté. ok d' accord donc ça se mu demee nii yëpp. waaw ok. ñu ngi lay jaajëfal bu baax loolu la ñu a leeral moo taxoon ñu ngi naan. merci mbokk yi ginnaaw ba ngeen dégloo suñu waxtaan ak soxna si. ñu ngi leen di ñaan kenn ku ne li nga xam te ni si moo si sa avis nga def ko ci commentaire wala nga envoyé ñu ko par message vocal alors ñu ngi tuub di jégalu encore une képp koo xam te ni si liñ fi wax laal na la wax ji nag lépp loo xam te ni si jub na fi ngeen xam ne ndimbalu borom bi la lu fi dëng ci mën mii di wax la di leen jox dig daje ci beneen vidéo incha allah